sëñ Saliou maa ngi lay nuyu nit ku baax mooy xàmmee nit ku baax man nag tuubaa bu ñuy wax diw dafa baax ak diw dafa social ump na ma man wax dëgg yàlla defkatu lu baax yi nekk Touba bu dul lu may dégg ci lu ñuy def tuubaa xaw ma leen xamuñu ma man sama fréquentation jigéeni tuubaa la waaye rëccuwuma ci dara buñ ma yeewoon xaaji guddi ma soxla mbooloo lim ba ma soxla dinaa ko am bërki bii ci guddi la soxna si confirmé ak man point de presse laay def Touba gépp moom man dootuma liggéeyal nit wala may jàppale nit naan ko dama lay dajaleel mbooloo nga gis man xam naa ni ma toll man te xam naa li ma jaral nit ñi dama daan wax ne bi ma tolloo ji laaj ndawtal bala maa tëdd bala maa làng di laaj ndawtal xam naa ñi ma war a lebal li ma war a am ci ndawtal xam naa ko ndax kenn ku ne la nga la rek mooy dellu siwaat ci yow ku ne xam na ne ñi ñu jot a liggéeyal ñëpp jéppi ñu jéppi leen ba tey jii fu ma ci bëgg a dugg liggéey liggéey ak yow xëy na sama ngor moo ma may ñu mën a investir ay liste te man nekkuma ci li ma tàllaloon loxo bëgg maa investir bari na lool waaye ngor gi ma doole politique bu ñu naan politique àndut ak ngor man sama ngor du mës a jeex ak man maa ngi ñi ma àndal yéen ñi témoigner ci man yëpp da ngeen a baax rek di def témoignage yu rafet ci man waaye ngor gi ma leen jàppe rek moom ngeen ma jàppe kenn ku ne tey nag moom lu gàtt lay doon muy ne ginnaaw bi soxna Astou Bally découvrire ne Ablaye Sylla mooy candidat bi gën ci département Mbacké ndax bu ñuy wax candidat bi gën ci département Mbacké mooy ki defal département Mbacké lu ko kenn kay fa du nii su ngeen ma xamul mënu leen maa jaamu dama gëstu Ablaye ñu wax ma ci ci moom li ma wax sànq ne Touba moom nit mën na fee nekk di def lu baax ñu di ko wax te man duma xam man dew ma fenn man jigéen ñi rek ñooy samay wéttal ñooy samay am ñoom laa xam dew ma fenn kenn xamuma yàlla xam na ne soxna Astou mi mës naa ànd ci ay délégation di ñëw di ko gis mu may gis keroog bi ma wooloo moog Baye Sall mii ñoom laa xamandoo ñoom laa gisandoo keroog laa ko mës nuyu dew ma ci benn saal li suñ borom wax rek wa taawunu anil birri wa taqwa man ci laa nekk mooy sama slogan jaamu yàlla ak liggéey lu àndut ak loolu nekkuma ci moo tax nag ñi social ci dëkk bi man xaw ma ci kenn kenn musuma joxub ceeb musuma ñaan kenn ceeb musuma laaj dara pour indil ko sama jigéen ñi dañoo ànd boole suñ bopp rek di liggéey di xaar yàlla waaye suñu xoolee na nag département Mbacké amuñu lu dul moom ku ne la nga am ngay waaje man li ma metti mooy deux jours lañ ma may pour ma liggéeyal Ablaye Sylla yàlla xam na ne su ma liggéeyaloon Ablaye di 17 jours damay assuré tey jii boo ñëwee ma ne la ran sàngam ngay jël yaay jël première wala la yaay jël deuxième première nag suñu borom moo koy jox ku ko soob ndax ñun xam nañ kiy joxe nguur waaye nag ku def lu baax yàlla nee na man de yàlla de moom nee na moom moom goreediwul day tëkku naan hal jazaa'ul ihsaanu illa al ndax man yàlla damaa ñàkk ngor ba ku ma defal lu baax duma la fay yaakaar naa loolu nit war na koo wax Ablaye silla démb damaa tëdd di xalaat lan moo kii kan la may fàttali mën naa ne bàyyi boroom kër gi muy Alaaji Jiili Mbay moom la may fàttali kan la ma Ablaye Sylla di jox Alaaji Njuga Kebe man jàpp naa ne bi ñu fi jógee tey gaatuma man ci liñ ma wax man ku remplacer ñooñu ku dul jëmmi ab Ablaye Sylla ji ci liñ ma wax ci moom wa maa shahid naa nag illaa bi maa alim na duma ma seedal lu ma xamul waaye liñ ma wan jox ma ko ci moom ma dégg ko ci soxna astu Gaynde Fatma man mën naa méngale Ablaye Sylla ak ñaar ñii ma dégg ci senegal li ma metti nag mooy tey bu ñu àndandoo woon ñun ñii ndax ñi fi toog ñëpp ay responsable lañ ku ne mbooloo topp sa ginnaaw am nañu ñibbi duma ma kenn mbooloo man li ma xam am xam naa ko nee naa leen Touba nit mën na ma fee ëpp nit mën na maa gën a gudd cortège waaye li ma fi mën moom ci kàttanu yàlla ku ko fi mën nekku fi benn responsable politique buy dox bu ma mën a gën a maîtriser Touba nekkul ci biir Touba tur nag suñu borom moo koy jox nit ak daraja ak am ami àdduna yi ndax fi fi fi fi fi carte Touba yi nekk muy banlieue bi dama ko maîtriser dama ko xam tey bu fekkoon ne 10 jours rek ci ginnaaw lañ ma jox ne ma wàccal ci terrain bi jàllale message u Ablaye Sylla wallaay waa Touba goree duñu kon képp kuy riir di nga xam ne département Mbacké Ablaye Sylla moo ci gën man dama décidé woon neutre ci élection yi sama ñi ma àndal ñëpp tey dama leen ñaanoon ne leen nañ neutre ñoom ñii ñëpp dama leen ne woon nañ neutre gisuma daal fu ma mën a adhéré woo ndax suñu borom dogal na ci dogalam yi erreur yi am na ba Mariama nekkul ci list moom jigéen ñi mënuñu koo gëm kon nañ neutre rek ginnaaw gi la ma soxna si prés wax ne ma bëgg na ma liggéey ak Ablaye boobu ba léegi xëy na suñu borom dogalu ko woon loo gis dafa am ab ba bërki bi ci guddi lay doog a confirmer ne dinaa liggéeyal Ablaye waaye man gëm naa ne waa département Mbacké li yàlla di tagge boppam naan man goree diwu ma waa goree département Mbacké goree diwuñu suñu leen waxoon nekk ne Ablaye Sylla lii lépp ndax ñi fi toog ñëpp tey lañ xam programme u Ablaye tey lañ dégg jëf yu baax yi man mii rek keroog bi ma soxna si wooye laay doog a xam kan mooy Ablaye dama daan dégg rek ñu naan Ablaye Sylla Ablaye Sylla ndax déw ma dañu kumpa kenn ba tax na ne maa ngi wax ne yaakaar naa ne li nga xam ne Ablaye Sylla def na ko te buñ nee diw baax na dañ naan ay mbokkam Ablaye Sylla mënoon naa dem jëndi politiciens yu mag ñëw teg leen ci département bi pour wane leen waaye dafa jël rakkam deretam ni ko yaay sama lépp ci département bi yaa fi nekk muy dox doxinu woo xam ne mooy doxinu Ablaay kon sëñ Saaliwu ñun bi ñu la gisee suñu xel dal na ndax doomi département bi nga te képp ku nekk ci doomi département kenn mënu laa ndax di la jaay fals original rek ngay jënd yow ku nekk fals ci département bi soo gëstoo di nga ci am lu la leer ñun nag duñu ay fals ñun original lañ ku ñu ne yow la yow la deux jours ngeen ñu tàllal loxo nañu nañu wàcc bërki démb ci terrain bi lañ nekk ba une heure du matin démb xale yi dañ jege nañ la ñoo ñoo ma ànd di tourner mënumaa nelaw ndax man su ma jëlee engagement ndam rek lay bëgg xëy na nag dara trop taarul ñi ngi ñaan yàlla ak yaakaar yi ma am ci yéen ak suñu jugee fa yéenee tàmbali ba suba ci wi ñi ñu war a dem ñépp ak ñi ñu mën a woo ñu àgg fa xool nuyu leen wax leen ne leen kat kii li mu lebal waa Touba man jàpp naa ne képp kuy gor tey wuyoo murit saadex soo duggee ci urne sa yaram dina daw sa ngor du la may mukk ngay teggi bulletin bi ndax naarkat bu demee gànnaar ñu xam ne fa la dëkk Ablaye Sylla mi ngi def ci Sénégal lu baax 46 département yi foo ci dugg danga naan ab Ablaye Sylla ci la bokk waaye Touba fas woo gis nag am na rocc Ablaye Sylla taalibeb Serigne Touba la te Serigne Touba lañ ko sédde kon nag kii ku ko teral teral nga Serigne Touba man maa ko wax te ci loyer nag laa ko teg teguma ci bëgg lu ko neex xaw ma ko sax man suñuy wax ab Ablaye Sylla man leen man gëstu jiwuma pour xam Ablaye Sylla ndax man topp ma nit mukk ngir intérêt personnel nit mën na fee bëri la baraw sama baay bu baax ba allah jili mbay te du xam sa njariñ ndax du àdduna du yàgg ba ma woo benn leader di la wax sama yitte yàlla na ma sëriñ Touba di teral waaye li Ablaye Sylla def man président yi fi ma sa toog waxuma leen ñaari président yi mujj de li ma wan ne ma Ablaye Sylla moo ko def sengoor mi njëkk a doon président de la république ci Sénégal defu ko fi ay réalisation yi Ablaye Sylla gisuma ku ko fi def Sénégal nag léegi boo jàngee sam njàng am ay waajur yu baax ay nit ñu baax ñaanal la ba nga réussir ay ay noon dañuy jug di la fakkastal ngir yàqal la ndagam ñi euh, ndagam ñi xew bu yàggul rekk ñoo mën a am teraanga am ay cortège ami kër ami alal sàkkantumaak nag moom mii di doomi dëkk bi jànge fi mu war a jànge dem maîtriser xam-xamam dem liggéey am teraangaam ne duma ko denc de yéenewuma ko kenn suñ borom a ma yekkal damay delloo si sama alal ci Sénégal jàppale néew ju doole yi ci Sénégal 46 départements yi ñëpp a war a découvrir kan mooy Ablaye Sylla Ablaye Sylla bu dencoon kenn du ko xam xam nga ab tam amut léeg léegi ñu ne ma man damaa am dama di tab aw ma ab tab bu dencee téeméer nga jàpp ne jeexalut dara looloo dal Ablaye Sylla ab Ablaye Sylla daa jëlut lim jël toog ci di ko rawale pour mille 2050 la mu am kus néew ci wërsëg da koo indi pour 46 département yi rawatina nag mu xër ci Serigne Touba amul lu dul Serigne Touba rakk ma ngi nii toog bàyyi a nga nee la lay joxoñ kon nañ nangul Ablaye Sylla dinañ ànd ak Ablaye Sylla ci côté yëpp nag ndax Ablaye Sylla nag ah man man man man man su ma waxee sax damay xaabaabal ci ay jëfam yu rafet dafa bëgg Serigne Touba. kuñ na yow yaa defar barabu sëñ sëñ fàllu bee man dama faa dugg di xool ba jàpp ne maa nga Dubaay ñu ne ma Ablaye Sylla moo ci dugal loxoom moo moo ko def ne te damaa dégg nag ci borom kàddu goo xam ne lépp lu mu wax dëgg la muy sëñ Abdou Karim moom sëñ fàllu mu taxaw def ci Ablaye Sylla témoignage yu kenn dul weddi ñu jóge ci loolu sëñ sëñ sëñ sëñ Modou Mbàkkem sëñ ametum sëñ baara mi jóge fii léegi bi ma koy wax barabub sëñ fàllu bi mu ne ma sama barabub maam bee de sëñ Sidi Maxtaar ma ne ko ha mu ne ma ab lay Sylla la may wax loolu ñu ne ma marché occas bii ngeen daan gis muy taa ak di tooy oto yi duñ am fu ñu jaar nee nañ pavage boobu loolu lépp ab Ablaye Sylla ko defar waa kooku doomi tuubaa mën nañoo dugg ci irnu gis kàttam di ko teggi kon tëyu ñu ko de loolu buñ ko defee dañ koo tëyut ba tax na nag temps bi xat na gàtt na sëñ Saaliw maa ngi lay dalal di la sant di la wax na nag Ablaye Sylla da doon yooruwaay yab na bu duggee ci ñun dootu ko defati département Mbàkke doyuñu ci Ablaye Sylla Ablaye Sylla senegal lañ koy dénk ndax suñu borom bëgg na ko mi ngi koy gunge ànd naa ki bokkam ànd naa ko waa senegal bu ko neexoon jël alalam toog ci naan naa fexe nu rawet defu ko la mu am la yulli indil ko indil ko Sénégal rawatina nag waa Touba. bi ci topp nag mooy sëñ Saliou deux jours lañu am ak yéen dinañ def suñu kéemtalaay kàttan nee naa la bu ñu démarré woon dañ lay jox dañ lay jox dañ lay jox suñu résultat bala ñoo dem élection li ci des mooy tàmbalee fi ñu mën a tàmbalee def ñaan jaar fi ñu daan jaar ba liste bi yàlla na ko yàlla rus ci barke seexul Khadim mais nag bëgguñu ngeen yem fii ak suñu jigéen ñi ñu amul lu dul ñoom man de awma benn soxla bu may demander kenn waaye képp ku ma jàppale ci jigéen ñi nga xam ne fii ba suba su la neexee soo jógee fii sama téléphone bii fu ma quartier bu ma woote mbooloo mu ëpp mi toog fa di la xaar loolu ku ko am amoo lu ndaw bëgg nga ku la ci jàppale sëñ Saaliw sama mbooloo mii dénk naa la ko man xaw ma Ablaye Sylla ginnaaw bi ma sëñ soxna Asu Baali joxee ndigal ci ne naa ko ko jàppaleel maa ngi ci ginnaaw soxna Asu Baali fa seenee laxasaayu ànd ak sama mbooloo teg ko ci seen loxo ànd ak Ablaye Sylla jigéen ñii xëy na nit dinay def teraanga di ko yóbbu ca kër ya te du agsi ci nii ñun ñii nag di ay néew ju doole ñoo yor carte yi ñooy dem ci urne yi ñooy voté politicien bu bëgg am base bu dëgër Touba wër leen ndax man occupé wu ma benn fonction awma benn ndombal tànk kenn mësta yëkkati benn dërëm jox ma ni ma yóbbul ci sa mbooloo waaye teewul bañ ma jàppee ba tey bàyyiwuñu lañ ma jàppee muy ngor nag bépp politicien bu bëgg am base Touba da ngay jàpp jigéen ñi ñoo yor base bi. kon nag ñu ngi lay sant di la dalal di la wax ne ñi ñuy xaar bëri na te yow tamit ñi lay xaar bëri na kontaan nañ nga xàmmee nga nit ñi xàmmee nga liggéeykat yi incha allah jërëjëf. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. di jiital ci nuyo bi soxna Mariama wax dëgg yàlla di ci di ci toftal suñu waaye ju baax ji ak sëñ Moussa mi nga xam ne ni wax dëgg yàlla ñu moom lañ moom ak ñun lañ boole liggéey bi euh, di ziar di jagleel cant gu gu kawe suñu suñu suñu mag yi ak suñu yaay yi nekk fii ak suñu rakk yi ñu ngi leen di ziar baax a baax dëgg yàlla di leen jégalu ci toogaay bu yàgg bi temps bi xat na te wax dëgg yàlla ku ne xam na yitte jamono ji ni mu ni mu ni mu tëddoo daal. ñu ngi leen di jégaluwaat bu baax a baax di am fierté contentement fekk fii soxna Mariama fii wax dëgg yàlla lii moom bi ma xëyee ci suba ba ba yëg ko rek mbégte la mbégte mu kawe ndaxte doomu aadama moom boo ko gisee rek euh, xar kanamam day feeñal jëm day day feeñal identité am daal wax dëgg yàlla moom bi mu njëkkee gisante rek xam naa wax dëgg yàlla ban façon doomu aadama la nit ku dëggu la nit ku dynamique la nit ku bëgg li muy def la nit ku am potentialité la it la koo xam ne nii wax dëgg yàlla képp ku ko am ci sa wet sa xel day dal wax dëgg yàlla moo tax bi ma bi ma déggee lii rek wax dëgg yàlla dama am fierté ak contentement soxna Mariama maa ngi lay maa ngi lay ziaraat bu baax a baax di la wax dëgg yàlla di la jaajëfal di wax dëgg yàlla di am contentement bu jéggi dayo daal ba tax na daal li nga xam ne ni moo ñu boole fii réunir nu muy waxtaan bi mu bëggoon a jagle muy tàmbali liggéey bi incha allahu rabbi temps bi gàtt na lool comme ni mu ko waxee wante ñi ngi ñaan rek ci ci ci yàlla suñu borom mu li nga xam ne nii naal nañ ko ci yàlla teg ci loxoom ba wax liggéey bi moom day door nii waaye dañuy continuer liggéey bi même bu échéance yi jàllee tamit li ñu visé mooy 2029 incha allah rabbi ñu préparé ko fépp foo xam ne nii euh, mën nañ faa liggéey créer fa ay cellules wala yi demee noonu liggéey bi gën a yomb nga xam ne massification bi day gën a gaaw dañ koy teg ci sa loxo incha allah rabbi ñu ñu liggéey ci amal ci liggéey bu am solo suñu jigéen ñi tamit dañ leen di rassurer. président président Abdoulaye Sylla moom nit ku sociale la moom sax yàlla suñu borom da ko may benn particularité bi moom du du politicien maanaam dadul def politique politicienne parce que politique buñ ko buñ ko définir ni ko niñ ko ni ni ko tubaab waxee maanaam lu lu baax la mooy l'art de bien gere la cité maanaam nit ki ni ngay ni ngay gérer sa ñoñ nga gérer nga nga nga téye leen ci téye bu bu bu am njariñ daal ñuy gis seen bopp ci yow di gis seen bopp ci société bi aussi dëgg yàlla loolu ku koy defee niñ ko niñ ko tekkee jëfin jëfin lu baax la xeetu jaamu yàlla la wante li ñuy faral di gis rek mooy dañuy gis lu safaanook loolu moo tax yenn saa yi muy am benn jeexital boo xam ne da ngeen di dem yéen da ngeen dem ba découragé ci ñi koy def loolu moo ko waraloon mais pour rassurer leen ci côté boobu président Abdoulaye Sylla comme man ak ñeneen yi nga xam ne nii jiital na leen duñ ay politiciens duñ def politique politicienne boobu ñun li ñuy def mooy politique de développement parce que loolu ci loolu la ñu nàmpatal ñëpp ñi nga xam ne ni mën leen a aider jàppale leen ci seen ay activité duñ ko duñ hésité di ko def te buñ ko desee defee tamit xaaruñ ci leneen ci ñoom dañ koy def rek te yàlla tax ndaxte politique bi li ñu ci dugal mooy fexe ba suñu société tubaa gi nga xam ne bokk nañ ko jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund ak jafe-jafe yi rawete li Touba am ci wàllum assainissement suñu yaay jii mi ngi ko évoqué sànq ne assainissement bi mi ngi commencé yàq tubaa parce que Touba amatul mbedd bu baax Touba amul tali Touba infrastructure yi fi nekk yëpp ndox mi ngi koy commencé yàq loolu nag day fa jar ñun waa Touba ñu taxaw def def ci taxaw seetlu am nañ doom yoo xam ne nii am nañ capacité assainissement boobu ñu réglé ko parce que première entreprise BTP du Sénégal de l' Afrique de l'Ouest Ablaye Sylla moo ko yor ku am entreprise boo xam ne nii matériel yi nga xam ne ni ñooy liggéey wàllum tali ak assainissement toll na ci cent vingt milliards amul kenn ku ko mën a concurrencer ci Afrique maanaam turquie yi wala français yi nga xam ne ñoom lañuy jox suñu ay projet sax buñ jël buñ jëlee projet yi Sénégal fii pour ñu liggéey ko faaw ñu ñëw suñu entreprise ñun sous-traité sous parce que matériel yi koy liggéey Ablaye Sylla rek ko fi am ba pare di employé 2000 Sénégalais ñuy liggéey benn ci man mii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kooku nag li mu am mi ngi koy def mi ngi koy def ci askan bi ba tax na waa ñun suñ doom jooju ñu ñun ñoo ko war a mën a encadrer porter ko parce que jafe-jafe yu bare bare bari Abdoulaye Sylla am na yenn dimension yu muy am wala taxawaay yu muy am wala mu am benn représentativité bu dëgër assemblée nationale lu baree bare moom ci jëm boppam da koy saafara loolu nag kenn waruñ cee jiitu ñun waa Touba parce que lépp lu mu am nag fii la ci jiital lépp lu muy def tamit fii la ci fii la ko yéene def ba tax na ambition bi ak ci dëkk bi moom jéggi na dayoo kenn mënu ko mesurer ba tax na ñun waa tuubaa ñun ñoo ko war a porté jàppale ko xam na bu ñu ko jàppalee jàppale nañ suñu bopp parce que li mu mëbét yi mu am ci Touba munu ko réaliser tant que ñun tamit jàppale wuñ ko ci benn côté bi jàppale ko ci benn côté bi mooy fexe ba liste bii nga xam ne yor nañ ko muy ABS ànd beesal Sénégal bii ñu fexe ba am benn représentativité bi assemblée nationale buñ ko amee rek lu baree bari dina saafaraw parce que ñun li ñuy faral di am suñu dëkk bii ay député la ñuy am député yi ñuy am sax ñun amaana mooy tax chaque jour bu may def ay waxtaan loolu laa leen di wax ñun député yi ñuy am ci département bi bu ñu doon def micro trottoir di di laajte seeni tur sax xamuñu ñooñu kañ duñu ay député askan bi ñooñu leneen la ñuy nekk di def assemblée nationale mais taaw luñu fa seen askan député yoo xam ne nii yow xamoo lan mooy sa jafe-jafe askan yow ku yow yaay kàddu askan bi loolu la ñuy wax ne député mooy sa kàddu askan ku am jafe ci askan bi ci yow lay ñëw wax la ko nga jooytul ko ko assemblée mais yow bu fekkee askan bi ñu laa gis ba leen di wax seeni i jafe-jafe yow est que xam nga jafe-jafe askan bi kon te ñun député yooyu lañuy faral di am te dayoo bi Touba am loolu nag ñun waa Touba war nañ ci jóg ñu ne yow yaay deuxième ville di Sénégal amoo kenn mënul identifier sa ay député ci dara dañuy nekk assemblée nationale ñeen ñi toog ñenn ñi di xuloo ñenn ñi nekkal fa seen ay leaderu parti discours yi ñuy véhiculer sax boo ko dégg dangay ngay xam ne ñii ci seen i chef parti politique la ñuy topp. toppuñu askan bi mais loolu ñun ñun ñoo ñun loolu ñoo ko war a mettre en terme ñun ñoo ci war a ñun ñoo ko war a euh, dakkal ba tax na dakkal bi ñu koy dakkal dañuy xool ki nga xam ne nii am na profile bu baax jege na société am daan na defal ci askan bi sax dara mu néew mu bari daan na daan na réaliser ay dara ci askanam daan na jàppale askanam mais kooku moo mën a représenter askanam kooku bu demee assemblée sax au moins sax sa xel dina dal ci moom mais ñii kenn xamul yan façon député lañ dëgg yàlla. te dayoo bi Touba am ñun war nañ am ay député yoo xam ne nii bu demee assemblée nationale dañuy dañuy dañuy def ay proposition de loi yoo xam ne nii dina mën a jooyanti suñu askan. dina mën a am jeexital bu am solo ci askan bi di mën a interpréter texte de loi yi di mën a bokk ci instance de décision yi ci groupe parlementaire yi di fa di fa di fa di fa prôner di incarner leadership bu Touba di fàttali nit ñi jafe-jafe Touba di ko teg ci xam-xam bu sell ci yar ak teggin. parce que dimension boobu moom la ñu am ñun Touba te dañoo war a am ay député yuy refléter image Touba aussi loolu daal ci côté boobu laa ne woon dinaa leen ci ñaax waxtaan ceeg yéen jàppale nag bi président Ablaye Sylla yéene am ci yéen waa yéeni Touba yi ak ndawi Touba yi am na ay financement yoo xam ne nii incha allahu rabbi président Ablaye Sylla bëgg na ko def xam naa bu ñu continuer di dérouler suñuy activité ci kanam tuuti di ngeen ci am ay résultats yu leer am na 10 mille groupement de femmes yoo xam ne bëgg nee la bëgg a jàppale ci ay formation ci département de Mbacké ba pare accompagner leen ci ay financement parce que yàlla suñu borom may na ko relation mu am relation internationale boo xam ne nii dina mën a dem jàppale aw askanam lever ay fonds ñëw financer leen yéen jigéen ñi ngeen liggéey ndaw ñi aussi société mi nga xam ne nii mi ngi ci mi ngi mi ngi mi ngi jam ñaajo yenn ci entité yi mu indi ko Touba incha allahu rabbi aider jeunesse bi ñu mën a intégrer ci société yooyu parce que dëkk bi ku ku nekk xam na ni benn activité rek moo fi am muy commerce ku ci xëy marché occas ngay dem toog loolu nag président Ablaye Sylla xam na ko am na ay stratégie ci loolu te incha allahu rabbi dina ci jàppale ndawu Touba yi rawatina jigéen Touba loolu moom incha allahu rabbi maak soxna Mariama dinañ ci taxaw ba résultat yi fii ay fan yu new di ngeen ci di ngeen ci di ngeen ci xam dara bu soobee yàlla comme lii moom jàmp na te mi ngi suñ kanam nañ fexe rek mu jàll ak jàmm te ñaan yàlla li nga xam ne ni bëgg nañ ko ci ñun ñëpp yàlla suñ borom defee ko noonu te am nañ ci yaakaar bu kawee kawee kawee kawe incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah